nañ sant yàlla. bàyyi ne nañ sant yàlla. ci jotaay bii ak ci guddi gii. ci jotaay bii ak guddi gii. place bi mi ngi wan barab. bàyyi ne place bii mi ngi wan barab. guddi gi mi ngi wan jamono. guddi gi it mi ngi wan jamono. jamono barab rek nag moo am. jamono nag ak barab. ñoom rek nga xam. kii maanaa la kii jëmm la. kii maanaa la kenn kii jëmm la. jëmm ji mooy barab bi mooy yaa ci toog. jëmm ji moom mooy barab bi yaa ngi ci toog. maanaam mooy jamono ji yaa ci nekk waaye. maanaam mooy jamono ji xam nga ne yaa ngi ci nekk. waaye man la cee dugal dara lu may jëf rek. waaye kat mënoo cee dugal dara. lu muy jëf rek nag. barab bi ñu yàlla pareel mooy suñu wàccuwaay. barab bi ñu yàlla pareel moo di suñu wàccuwaay. jamono ay jëf. jamono jim ñu pareel mooy suñu wàccuwaay jëf. kon nag bi yàlla defee guddi tey gii. kon nag bi yàlla defee guddi tey gii. fii ci Medina moom la def muy suñu makkaan. fii ci Medina moom la def muy suñu makkaan. suñ jëf ji nga xam ne moo dugg ci guddi gii suñ jëf ji nga xam ne moo dugg ci guddi gii mooy jekki xaale ngir yàlla siyaarante ngir yàlla moo di jekki xaale ngir yàlla di siyaarante it ngir yàlla te loolu yàlla dale na ci dëbu rëy maa ngi tàmbale ci barab ak jamono bàyyi ne mi ngi tàmbale ci barab ak jamono barab yi lu ci gën mooy néegi yàlla yi barab yi lu ci gën mooy néegi yàlla yi na ngeen góorgóorlu di ca di déng déng di ca dem na ngeen góorgóorlu di déng déng di ca dem ak jotaay borom xam-xam yi joxe xam-xam bu wér ak jotaay borom xam-xam yi borom xam-xam bu wér ñuy joxe xam-xam bu wér ñuy joxe xam-xam bu wér jamono yi li ci gën mooy da nga sédd yàlla rek jamono yi li ci gën mooy la nga ca sëdd yàlla. weer wi nga xoor. weer wi nga xoor. ay minutes yi nga su di ak minutes yi nga sit di ko rukkoo ko su jóot. waxtu yi ngay tudd yàlla ji ngoon. ak waxtu yi ngay tudd yàlla suba ngoon. loolu nga am ci sa jamono lii nga am ci sa barab. loolu nga am ci sa jamono lii it nga am ci sa barab.